waaw gars yi maa ngi leen di siyaar Adamo la kaa bi mën lañ ko yónnee yaa ngi dégg te ki ma ko yónnee xam naa ko xam naa bu baax ki ma ko yónnee duma ci wax mais am naa droit woote mu wax nan la demee ngeen déggu ko su ma ci kaawoon àdduna bi tukki damaa weex dunq rek su ma ci kaawoon àdduna bi tukki may leen ma rek ma won leen salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. maa ngi ziar yaa ngi si jàmm. ok defe naa Sénégal gi yëpp xam nañ ne xew jërul wax bi di gudd man damaa toog ba mu yàgg yow yaa ma envoyé vidéo yi yow sa jëmmi bopp léegi nettalil Sénégalais yi nan la demee lan moo tax nga capturé vidéo yi téye ko ak nan la demee mu gaaw. waaw góor mu ne ma ban téléphone ma ne ko waaw. léegi mu ne waa boo bëggee ma jox la dañuy def appel vidéo. waaw. léegi ma bi. pour au cas ma joxul iPhone bi ma xam li may defal moom. ok. waaw baax na mais yow tamit soxna si iPhone gars yi naa def appel vidéo yow da wane sa yëf wala wane woo wala moom rek moo doon wane. xaawacca mais wane woo sa kii ba tey parce que enregistrement bi vidéo bi dañ koo téye kaw dañ koo dang waaw moo ok baax na mais yow lan moo tax nga am intention jékki-jékki yónnee ma vidéo yi baax na amul problème soxna si ñu ngi lay jëfar jërëjëf merci beaucoup ok gars yi mi ngi noonu yéen a ko déggandoo.